ci waaye nag euh, wax dëgg yàlla. Hmm. ginnaaw bi ma nuyoo ñu fa toog ñëpp. Hmm. Euh, am na ay kàddu yu bëri yu ma dégg franchement damay jàpp ni euh, dafa nekk à la limite de ce qui est vrai am na sax ay kàddu yu may ñaawlu parce que yenn yi day nuru accusation parce que bu ñu suñu mbokk mi Cheikh Yérim bu naan le PS et cetera comme bu dee man aujourd'hui je suis. euh, responsable de certaines pratique c'est presque une affirmation mm. yi ma ci fortaatu rek suñ mbokk mi nga xam ne pêcheur la bu wax na ci moteur yi am na benn précision bu ndaw boo xam ne am na ci solo mooy l'État n'achète pas des moteurs pour les acteurs waxal wolof ñu mu gën a yomb waaw man xam nga lii nag man dama bëggoon sax sëñ bi nga invité ma ci sa émission bi parce que vraiment mm. dana jafe trop ñu mën a euh, tontu yenn yi comme ça mm. mais wax ni par exemple boo jëlee moteurs yi état bi jëndal moteur ab mool moom mi wax xam na ko nga dul état li mu mën mooy <clears throat> ne la dama lay subventionné yaay dem jëndi sa moteur yaay tànn sa marque état nag mënul imposer par exemple ne bu dee Yamaha am na nit ñi xam nañ ko li ñuy wax benn dealer régional maanaam kooku rek mooy yor sañ-sañ jaay loolu ci région bi ñun loolu bokkuñ ci organisation boobu. tey dañu def suñu naa appel à manifestation d' intérêt ñii mu intéressé programme boobu ñoo tontu te ci ñooñu la pêcheurs yi dem jëndi seen moteur donc du état muy jënd baax na baaxul cher na cherul bi nga nee moteur 60 chevaux xam nga ni ëppul ci li ñuy jënd wax ñu li moteur 15 chevaux bi di jàpp li moteur 8 chevaux bi di jàpp ñenn ñi tey 1 million 40 mille la ñuy jënd seen moteur état di leen jox 1 million kon nag loolu dama bëgg mbokk mi. nga rafet lu genre liggéey boobu ci li ñu liim rek carburant bi da nga ko xeeb waaye Sénégal lañ ne nekkuñu Gambie mais état buy dugal huit milliards de subvention ci carburant boobu rafet nañ ñu reconnaître ko mën naa dem ci yeneen wax nga ni li nga soxla mooy ay port de pêche état ngi ci ndegam port de pêche bu budoo di quasiment mu ngi yegg parce que liggéey ba yegg na fi mu ne ni yemb na ci ay installation la ñu ne damay jël exemple boobu pour bañ a jël li ñu wax yëpp mhm. bu ñu naan aussi wàllee licence mbokk yi mais nangul leen ñu lenn aussi buñ ko waxee licence yi fi may wax ak yéen nii yokkuñ ko ci Sénégal loolu dafa am solo boo jëlee nag période bi nga xam ne de tout le temps période bi moo sax du nangu dem géej parce que xam na ni jën amul. Hmm. période hivernale moo tax campagne bi ñu koy tëj. campagne bi ñu ngi koy soog a ubbiwaat fan yi kon nañu comparé ci fan yi di ñëw liñ fiy wàcce ci production ak li nga xam ne amoon na ci période yi passé bu ma juumul ci chiffres yi parce que damay wax ni dama leen dab. Mhm. mais au moins département yi mën nañ ko xayma environ cinq cent mille tonnes fii ci Sénégal. pêche industrielle boobu ñu singali. Mhm. dépassé wul quinze pour cent ci département yi donc la ca des ay débarquement pêche artisanale la loolu am na solo kon nañu teg bu baax man maa ngi organiser incha allah mhm. des journées plusieurs journées nécessaires pour ñu waxtaane ko nañ ko teg ci table bi parce que affaire licence yooyu man man nangu naa n'importe quelle invitation ñu wax ci. Mm. am na ay publications ñu laaj pare naa ci pour pour l'instant parce que dama doon saytu yéen bu teg ko ci yoon. Mm. donc mbokk yi dama bëgg. parce que l'information est capitale elle est mm. importante. mooy yóbbaale ñu bëri. mais tey dafa am lu bëri yoo xam ñu ngi koy dugal ci bopp nit ñi bu ñu jëlee la euh, Union européenne bi ñu wax nii day mel ni ñu ngi koy soog a xaatim ñun. te yàlla xam na ni balaa may toog sax loolu weesu na. mais amoon nga xam ne Union européenne ci ay accord am da daan napp toutes les espèces quasiment loolu ci ay accord ñaar ñett yi weesu dindi nañ ko pour maintenant le restreindre uniquement aux espèces tonidées cinq cent mille tonnes laa lay wax ñuy wax waxi dix mille tonnes de thon moom mii ma doon xam ne ni nappi thon boobu bu koy nappi rek na ma wax nan la koy nappi ji ak fan la koy nappi du ko nappi donc espèce quantité boo xam ne tey état bu ne dañ lay jox quota ne la quota bi nga ci am droit au mondial résurfuge boobu boo ko nappul c'est des espèces qui migrent yuy dem feneen boo ci jëlee dix mille jox ko ay nit waxu ne maa ngi koy def dama ne lépp mën nañ ko defaraat a defaraat mais dama bëgg ñu delloo ko ci place am. alors une question monsieur le ministre. monsieur le ministre oui Aïcha. ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi. waaw ñoo ngi lay nuyu dama la bëggoon laaj rek. Euh, ton boobu noonu euh, ndax tey Sénégal mën na am ambition am l'équipement nécessaire mm-hmm. pour di ko nappal boppam. am tooñ yi loolu aussi accord yooyu bi muy am amuloon benn équipement boo xam ne sénégalais boo ko doon natt xaw ma ndax ñoo ngay dégloonte de. ci dégg nañ. voilà ma ne amuloon benn équipement waaye tey fi ne nii armateurs yi am na ñu ngi commencé am des armements sénégalais. qui commencé à s'attaquer à cette pêcherie là. tey am na ay structure ay armateurs yoo xam ne commencé nañ dugg ci loolu di profiter sax ci accords yi ñuy signé ñun ay Cap-Vert ak yooyu di yokk ci tonage ba ñu am droit. xam nga. suivant l'espèce damay jëlee par exemple le thon obèse là Sénégal ni muy dee yëpp mille trois cent et euh, mille trois cent vingt trois tonnes rek la ci am droit napp pour vous dire que par espèce la ñu war a dem hmm. wax ngeen waxi transformation mais fii ci port de Dakar commencé nañu am ay industrie hmm. yu transformer bi di ko exporter fii ba États-Unis donc évolution yi am na il est bon ñu xam ko. léegi am na benn ministre nag. Euh, comme da nga ma interpellé da nga ma interpellé mais. ñun ñun li ñu waxoon rek moom nga wax. c'est-à-dire dañu wax ni parce que bu ma déggee monsieur le ministre. oui man la Cheikh Yérim. waaw sëñ maa ngi sant yàlla bu baax ma ne comme da nga ma interpellé. déedéet yaa ma interpellé kay. non mais yow li nga waxoon li ñu wax rek nga wax. Hmm. parce que boo déggee nga ni dafa am espèce yu ñu cible pour loolu la Union européenne mën a napp loolu ça répond à un impératif maanaam da nga bëgg a wax ni du espèce yëpp la ñuy napp. donc ñu ngi ci thème raréfication bi ak nu ñuy def ba sauvegarder yenn espèces yi nes ce ñun loolu lañ wax transformation bi aussi nga ni quai de Dakar am na ñu ngi lay gën a ñaax c'est très bien ñu ngi lay gën a ñaax transformation bi ñu gën koo yaatal ba ba pare monsieur le ministre avant ngay dugg sa collaborateur bi ay dara bi mu waxee li état bi def yépp ci pêche bi ñun ñëpp dañ ko rafetlu même Modou bi doon contesté ñun dañ ñi ko danga war a accepter ni am na ay avancé mais nag monsieur le ministre yaa ma gën a xam ni euh, lu jëm ci lekk dafa stratégique te fi ñu toll nii tubaab yi bu fekkee ni ñoom ñoo yor jën yii ñun duñ ci duñ ko duñ ko xax jege ci àdduna loolu dafa am donc pourquoi est-ce que ñu war a xaar ay tubaab di leen di jox ay quota ci thon alors que ñun mën nañu wut ay thonier nappal suñu bopp suñu ay thon defar ko fii exporter ko am ci xaalis. waaw maa ngi wax pêcheurs yi gën a am seen pouvoir d'achat gën a baax. allez ñu doon tuuti tontu léegi nii loolu. waaw processus la boo xam ne tàmbale na fii ci Sénégal. ah mais c'est bien alors. il faut le renforcer donc. dama ne. Ah. tàmbale na fii ci Sénégal ci ay structures sax yoo xam ne pour les accompagner. état ci boppam dafa jël participation pour loolu mën a ne. Ah, muy benn. c'est très bien eh, ñaare bi damay wax du may jël par exemple li ñuy lekk fii Sénégal di ko napp yenn yi. Mhm. boo jëlee par exemple les démersales côtières fii ci Sénégal depuis 2016 la ñuy jëlee tout attribution de licence ci espèces yooyu. 2016 mhm. ça fait combien d'années. 2006. Mhm. et et cetera et cetera donc amalgame yi daf ci bëree bon peut-être que on peut justifier mais ñun ñu ngi ci liggéey boo xam ne changement nag yombul parce que. Euh, war ngeen ma nangul ni bu ma ñëwoon xëy na euh, laaluma dara peut-être que dana am jàmm. Papis monsieur le ministre Papis Diaw une question ñu bëri bëgg nañ poser question mais c'est le temps qui nous est. un peu compté Papis rapidement. waaw monsieur le ministre maa ngi maa ngi waaw et puis di di di di commencer di tooñ parce que maa ngi wax moom. Ah, dafa am malchance su la pêche bu tombé ci contexte bu difficile xam nga ministre moom affaire te seen saa yi nga tombé ay situation yu neex yenn saa nga il n'entend yaa ngi may dégg. waaye mën nga reprendre dégguma la bu baax. voilà dama la wax dama doon tooñaale au début quoi maak euh, acteur bi di wax na yow da nga am malchance su tombé si période bu doy waar euh, ci ni nga nekk ministre am na ñoo xam dañuy am chance yow xëy na dafa bëri ay difficulté mais sànq yaa ngi wax léegi ay. Euh, sëñ bi Diaw dégguma la à moins ngeen may ma ma teg bi parce que. bon. waaye. Hmm. waaw léegi yaa may dégg c'est bon. Pape Allo allo waay. avec waaw da euh, sànq dama dégg léegi bi ngay wax yaa ngi wax euh, waxu quota euh, ak waa Union européenne et tout mais est-ce que du foofu mooy mooy problème bi monsieur le parce que dama gis ne affaire souveraineté dafay ñëwaat parce que sànq sax yëri yëri mu ngi koy wax boo demee Union européenne boobu ñuy wax tey aujourd'hui ñoom si ñu seen biir ñoom dañoo diviser wu xam ngeen Brexit maa ngi fii mais tey problème négociation entre la Grande-Bretagne ak ak ak Union européenne dafa am zone euh, pêche bi ak pêche bi quelles sont les zones à pêcher fan la ñuy amee c'est un gros problème ci Brexit bi entre la Grande-Bretagne et les et l'Union européenne donc boo waxee quota boobu ngay wax noonu lu ñu signé pour tous les pays concernés est-ce que du ñun Sénégal foofu la ñu amee problème foofu la ñu war a amee courage ñu ñëwaat revoir un peu pas oui moi c'est ça ma préoccupation parce que je vois que ailleurs c'est un conflit très sérieux très sérieux pour ñu ngay wax nii très très sérieux vraiment pourquoi allo. oui. bon yàlla bon je pense en tout cas ci wàllu euh, quota bi ñu jox euro européenne. Hmm. dama bëgg rek ñu jàpp ni tey bu bu doon espèce euh, côte loo xam ne Sénégal xam nga est loolu li mu nekk en très en très haute mer moo tax au niveau mondial ak justement la gestion durable de ces ressources nit ñi tënku ci benn organisation internationale loolu lépp dañ ko war a xayma de façon d'accord naag yéen hmm. pour justement assurer la la la durabilité de cette ressource là tey bu doon ressource la boo xam ne ñun buñ ko nappul mu nekk fi amaana duñ ci li ngay wax ni danañ dañ ci ànd ak yow. Hmm. mais dama jàpp ni ku xam ton notamment ton yi ñuy wax ay paludoog yooyu nekk suñuy suñuy géej euh, ñaar ñetti weer lay ne ci Sénégal boo ko nappul mu ngi feneen. Hmm. ci loolu lañuy jox tey Union européenne ci quota boobu mooy te organisation mondiale bi ci wàllu woo mooy bu ñu nee Sénégal par exemple quarante mille tonnes nga am ci espèce bi. boo lëgee bu nappee quarante cinq mille tonnes cinq mille tonnes yi da koy restituer en terme de quota à d' autres bénéficiaires bu Union européenne nappee Sénégal dix mille tonnes par exemple France napp ci cinq mille wala Espagne ci quota moom lañ koy génne waaye duñ ko génne ci quota Sénégal mooy wax ni loolu bi ko nit ñi di négocier état demul négocier ko en catimini les acteurs principaux notamment industriels de ce pays. Mm -hmm. ñu ngi woon ci ñi doon en tout cas les observateurs teewee ko fekkee ko kon tey bu amoon peut-être pour man scandale ñooñu waroon nañu ko génne depuis parce que gis ngeen ni bi ñu fi waxee waxi licence ba naan ay licence chinoise ñu ko teg sama ndodd bi gis ngeen ñooñu ils étaient des acteurs présents tant qu'observateurs donc bu ñu ne état dafa dem saax saaxe mbir yi daf ko en catimini mm. li xew fi mu ne ni du lu bees Union européenne dans ses procédures mooy ratifier loolu kon aussi loolu dama bëgg nit ñi leeral ko bu baax. allez mais comme ni nga ko waxee tey commencé na am ay acteurs ay armateurs sénégalais yu at yu attaqué euh, nu mu tuddati ressource boobu. am na fii nga jël ay contact nga jël ay Casa fii ci port de Dakar yoo xam ne tey ñooy transformer loolu di ko def de façon industrielle di ko exporter fii ba États-Unis c'est parmi les rares qui sont agréés là-bas au niveau alimentaire xam ngeen ni mu sévère donc évolution boobu mu ngi tegu ci yoon bi. Merci. Merci.